nga ci bëtti ko avant ñuy julli timis nga nan lolu loolu bu koy jappo dina dina la doy sëkk ci walu sëkk kooku kon dafa na ne lu ama am am solo la góor ñu mën nañ cee laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman fee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am waaw waaw jërëjëf Aline euh, kon bu ko defee Euh, li nga xamante ni moo koy indi defe naa ne dugg nañ ci gis ngeen ko mooy pat yi beurre yi chocolat yi ak yàpp duuf yeeg ya ci aju loolu day tax nit ki day bari graisse yaram te graisse gu bari mënta ànd ak sëy kon léegi li lay dimbale ci gannaaw ba nga xam ne. yi gannaaw ba nga xam ne am nga ko te bëgg solution ñu may leen ci gis nga ndoxu limon lu ñu xeeb la waaye lu baax la ci góor moog jinjeer ndoxu limon baax na ci ndax day circuler deret ji. ji jeex tax dara ji daw bu baax ak jinjeer bu loolu weesoo am na garab bu ñuy wax inkeleng inkeleng garab la ak reenu salaan ak reenu tëmb ak reenu santaŋ gis nga ñeenti reen yooyu bu yàlla attee bu ci nekk nga am ci takk takk bu nekk nga jël ci ñaar ci bant tàngal un litre ndox et demi xooj ka ca soo lekkee xel ci kaas naan rempli moo ndékki añ reer saa boo jëfandikoo ndékki rek xelil kaas bu toll ci bi ngay ndékkee naan waaye soo naanee rempli waatal bidon ba ba mu dem ba sàppi loolee dana la dimbale ci wàllu sëy dana la dimbale ci wàllu sidid yi dana la dimbale ci wàllu dret ji dana la dimbale ci wàllu graisse bi te loolu yaa ngi ko mën a amee ci li nga xam ne moom la wax mooy lan inklañ garab la ak reeni salaan ak reenu tëmb ak reenu santan su ko defee ñeenti reen yii bokk na ci nga am ko takk bu ci nekk nga jël ci ñaari reen nga boole leen baxal ñaari litre ndox nga xooj ko ci bàyyi ba mu sedd ngay def saa boo lekkee naan kaas soo reeree noonu ba keroog yàlla dogal muy sàpp loolu dina la nga xamante bi dañoo am jafe-jafe sëy na noonu itam euh, euh, li nga xamante bi moom la ñuy wax euh, nenu ginaaru olof tudd naa ko sànq nenu ginnaaw pir, bu yalla até nga am ko nga toj ko def ko ci kaas waye lu weex la jaune la bu ci bop nga jël kuddu citron bu ndox nga sotti ko ci jël kuddu ndox ndox normal sotti ko ci bëtti ko avant ñuy julli timis nga nan lolu góor bu koy jappo dina dina la doy seuk ci walu seuk kooku kon dafa na lu ama am am solo la góor ñu mën nañ ci yamandi mën nañ ci yamandi ba kéro ñuy gis leneen ama mais li ngoom bi tamit bëgg naa nga léral nan nañ koy jëlee bi kuddu kuddu manam dang koy dang koy dang koy paccal paccalal jëlal kuddu bi ngay añee nga paccal ndox mi ba mu fess ba mu fess nga soti ko ci kaas bi nga jël nenu ginaaw bi nga toj ko lu wéx lolu tara tax nga bayiko ba mu jall ba mu jeex lu jaune la nga génne ko ci bu ko ci bolé légui na nga jël kuddu ndox nat ko ci kuddu añ bi ba mu fess nga soti ko nga bëti ko bo démé bu julti ba nga jël ko C'est une boutique biotique en partenariat avec Muslim moo présenté une présenter gamme de produits 100 bio 100 naturel sans effet secondaire pour un traitement définitif contre l'éjaculation précoce góor ñi nga éjaculation précoce moo leen sonal wala dañoo am faiblesse sexuelle maanaam dañoo néew kàttan ñu bëgg ci un traitement définitif wala sax dañoo am problème azoospermie maanaam seen man de dafa woyof un sperme dafa woyof ñu bëgg ko renforcer fortifier ko wala sax euh, góor ñi nga xam ne dañoo yor ay awra yu gàtt ñu bëgg ko yokk am nañ si pommade bu hyper efficace am nañu aussi un lubrifiant très efficace 100% bio 100% naturel pour neexal say baax lool si jigéen ñi góor ñi ñoo am aussi une pommade ak huile loo xam ne c'est très efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg euh, augmenter seeni sein ak jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg yokk fesses ak seeni hanches am aussi un traitement hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo am ay vergetures maanaam dañoo am ay rew ñu bëgg mu dañ taxalikoo ak ñoom am nañ aussi un traitement hyper efficace pour ñi nga xamné ne dañoo bëgg perdre sen poids mo xam sa biir mo ngand nga bëgg mu wàññeeku wala sa poids nga bëgg mu wàññeeku am nañ aussi une gamme neexal say hyper efficace pour jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg teelu xale maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg réserve vaginale wala dañoo am perte blanche wala dañoo am une mauvaise odeur vaginale lépp da koy dindi traité ko de loola kom bi nga nekkee jànq nañu aussi lem pur cent pour cent bio cent naturel képp ku si bëgg mën nga ñu contacter si 77 982 98 82 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن خيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا